بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكئ إلا زانية أو مشركة والزانية إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kon lii mooy suuratu nuur ñu war a tàmbalee ci ñaari yëf bu njëkk bi mooy lu tax mu tudd suuratu nuur an nuur mooy lan lu tax mu tudd suuratu nuur li ci topp mooy incha allah lan ak lan la saar wi ëmb ci ay lan mawduwaat suuratu nuur mooy saaru leer mooy saaru leer xam ngeen ni ci alquran bari na aw saar woo xam ne turu saar wa baat bu bokk moom day ñëw lan ci biir saar wi demee ni suratul mulk soo day jàng saar wi da ngay gis tabaraka alladi bi yadihi al mulk dama ne suratul baqara boo demee ci biir saar wi da nga ci fekk baatu lan baqara teg sa bu aju ci aw nag wuñ ko nekk yi suratul aaraaf suratul aala suratul naba suratul naba baatu an naba dafa ñëw ci biir lan kon fii itam lu mel noonu am na fi an nuur mooy leer saar wi ci boppam tudd na lan tudd na leer suñu waxee allahu nuuru samawati wal ard waaye itam saar wi ci boppam day leer saar wi ci boppam day leer kon saar wi dafa tudd leer ci biir ay alfaabam ci biir ci biir baat bi ci biir saar wi waaye dafa indi ak leer dafa indi lan ak leer leer googa di feeñ ci ay cër di feeñ ci ay ruu di feeñ ci ay xol xam ngeen leer googa mooy lana mooy yoonu lislaam yoonu lislaam lépp ak leer la te ne leen biir ne wépp yoon wudul woonu lislaam rek lan la ak lëndëm mboolem yoon yi nga xam ne nit ñee ko tëral moo xam yoon yu jëm ci wàllu ijtimaa muy ni ñuy dundee ci ci pénc wala ni ñuy dundee ci wàllu politique ak mboolem ngir yi nga xam ne ay ngiri philosophie la lépp lëndëm te it ne leen bir na mboolem yoon ak loi yi nga xam ne nit ñee ko tëral moo xam ay yooni politique la yooni économie yooni justice lépp lëndëm la lépp lan la soo yeboo nga tàmbalee ci capitalisme wala li ñuy tuddee libéralisme lëndëmu kese la te réew mi ñu koy doxalee du mën a baax loolu ñuy wax socialisme lëndëm la te réew mi ñu koy doxalee du mën a baax loolu ñuy wax communisme loolu itam lëndëm la te réew mi ñu koy doxalee lan du mën a baax loolu ñuy wax yoonu franc-maçon franc-maçon ak mboolem ay club yi ci bànqaasoo Rotary club ak Lions club ak club club yëpp yëpp yëpp muy xeeti association yoo xam ne yahud yoo ko lan yahud yoo ko fent di ci nax nit ñi lépp lëndëm la lépp lan la lëndëm la bi maanaa ci gàttal la lépp lu nga xam ne dafa wuuteeg yoonu lislaam moo xam loolu ay aada nit la moo xam seeni jikko la moo xam savoir vivre la aw dundin la système bu ñu tëral lan dund lépp loo xam ne dafa ñëw wuuteeg lislaam loolee ak lëndëm la te itam jëpp jëf ju nit di def moo xam suluk fardi la muy nit ki def ci wàllu lan bopp boppam wala suluk ijtimaa'i la lu muy def seq ko lan jëpp jëf ju nit def te jëf joojee wuuteeg islam ne leen dër nekk lëndëm la kon qaayida bi rek moo di ne bépp système wala wépp yoon wuñ tëral lëndëm la leer moom genn la mooy lan doo fa li baaw fa yàlla mooy yoon yàlla te lii ma leen wax am na tegtal yi am na lan tegtal tegtal ya ba ca gën a wér xam ngeen mooy banaam mooy li nit ñi nekkee ci jamono yi ñu toll ci àdduna bépp ci texeel ci dund gu lan naqari àdduna bépp réewi penk yeeg réewi lan sow yi Europe Amérique Asie Afrique àdduna bépp fi mu nekk nii ak mboolem xeetu seen i société ak seen i mujtama ñoom ñëpp ñu ngi ci ay lan ay masaakil ak i coono ah gis nañ ne itam système yi nga xam ne ñoo fi nekk ci àdduna bi yépp échec capitalisme ma nga ma nga Amérique nit ñaa ngay xaru problème yaa nga fa nekk gàññi du jeex du xaj socialisme tas na ci àdduna bi am na France am na fii ci réew mi teewul tey la problème yi gën a lan metti socialisme système socialisme jiite na Sénégal ñaar fukki at ak nangam moo ndax tax na jafe-jafe yi Sénégal dañ déedéet ndax si loolu ba ca France tax na jafe-jafe yi ca France lan dañ déedéet xanaa kay day yokk communisme ma nga Union soviétique ma nga Chine waaye boo demee foofu it fekk fa ay jafe-jafe ak ay coona ak ay métti ah amul fenn fu nga xam ne fii jàmm nekk na fi ci àdduna bi ba tax na léegi leer na nañ ni jant bi yoor yoor leer la leer ne mboolem système yi nga xam ne ñoo nekk di dox ci àdduna bi di doxal lan adduna bi ñoom ñëpp lëndëm lañu te benn boo ci yaakaar ndax wax ju naaj dañuy lan dañuy wax ña tey milité wax ju naaj joojee ak yaakaar yañ tey jige ci seen doctrine boo ci yaakaar ba dugg tey boo demee fekk ko mu doon sarabin biqiatin yaxsabuhu zam'anu ma'an hatta ida jaahu lam yajidhu shay'a fekk ko muy janooxa da xam ngeen janooxa boo nekkee ci àll waxtu mbóoya boo xoolee fu sori da ngay seen lu weex loolu day nurum ndox waaye boo fa àggee fekk muy tàngooru kefe loolu muy misaalum mbooleem système bi ci kaw lan suuf a suuf système bu la ci tàggal rek nga ne biyee ci gën waaye bu dara lu may nga jëfe ko saa boo ko jëfee ci sam réew fekk ay lan ay jaaxle ak ay jafe-jafe ngi dul jeex du xaj loolu moo tax àdduna bépp nekk di dund lëndëm lëndëm mu ngir ñàkk a xam lëndëm ak sikki fàkk lëndëm ak jaaxle lëndëm ak salte ak sobe loolu maa suñ baaxuwaa foofu waaw te xaqiiqa boobu ma leen wax xaqiqa xam koo xam ne l'islam moo di leer te leneen lu dul l'islam wépp yoon wudul yoon lan l'islam ak lëndëm la loolu saar wi ci boppam saar wi di bëgg a firi wax na ko wane na ko wane na ne socialisme lëndëm la capitalisme lëndëm la communisme lëndëm la franc-maçonnerie lëndëm la mboolem mboolem yoon yi nga xam ne bindaa fa ne ko lan tëral lëndëm la walladina kafaru amaluhum kasarabin biqi'a يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سامر يا زلمه نيغا خامني دانيو ويدي ñi nga xam ne ay yéefar lañu seen jëf yi ñi ngi mel ne njanoof nekk ci àll te xam ngeen ni si yoon yooyu yoon yooyu yi ma leen tuddal fii lépp mbooleem yoon yi ñuy doxale adduna bi jamono yi mu toll yoon yëpp yoon yi ñuy wedde yoon yëpp jëf yi yéefar yi seen jëf nag mi ngi mel ne njanoox loo seenan ci àll boo maree ba seen njanoox dafa ne ndox la nga mar nga mar mooy maanaam nga bëgg yoon wu jub woo jaarale sa bopp ak sa famille ak sa njaboot ak sam réew loolu mooy mar wi nga nga ne naa ko lamb ci capitalisme ndax nee nañu moo gën a baax capitalisme ñoo tane ci adduna bi wala naa ko lamb ci socialisme ndax kat moo gën a baax ñu ne la déedéet mode bu bees bi génn mooy communisme lu nga wala nga nekk fard lu nga dem waadu tari club ndax la wala franc-maçon benn ci lan daan ngaa ci franc-maçon ndax ne la da ngaa nekkoon ci lëndëm da nga ñëw dugg dugal la ci leer wax laa wax a wax daan la jox àjjana lu ne ñu wax la ay fen la lépp fen la sama borom yàlla ne seen jëf yooyee ak seen wax yooyee nga xam ne dañ koy naatal day bu taxee nga yaakaar seen ngir ya ba tax nga lan dugg ca doo wóoroo lu may nga mel ne ku maroon seen njënoox mu nga teg comme ndox daal dem nag ba àgg fa ba nga demee fekkoo fa dara noo kon tànk yi nga dox ba àgg pertoo ko ah kay jamono ji nga jeexal ngir ak si pertoo ko ah kay fekkoo fa dara te fekk nga fa yàlla nag boo fekkee yàlla lu mu lay def da lay fay li nga jëf li nga jëf mooy lan da ngaa tooñ jéego yi nga dox ngir ak si bii waroo ko war a dox fi yoonu cànkute la fi mu ndox newu fi fi leer newu fi ndox nga ko nag sànq nga sa dund te itam yàlla mi la sàkkoon dafa amoon xaraf bu taxoon lan mu sàkk la te loo xaraf boobee mooy nga dund laa ilaha illallah te nee nga ko te yàlla moo day fudd sa nit fa faaw xisaabahu wallahu siraaw xisaab wala ñu mën koo misaale lëndëm ñu nekk ci leneen yeneen yoon yu bokkut ak lan islam tey boo ngeen jàppee leen ñu nekk ci lëndëm lëndëm bu nekk ci géej géej goo xam ne dafa bari ndox yow mu duggoon ci biir géej gu bari ndox lool biir ndox mi nu muy mel day lëndëm yàlla dogal nag fi nga nekk ci ndox mi aw duusa ko tiim xam ngeen duusu ndox aw duusa ko tiim duusa woo xam ne weneen duusa ko ca kawam dafa gën a lëndëma te fekk duus yooyu yëpp itam aw xëy na leen tiim nu muy mel day lëndëm kërit ba nga xam ne soo génnee sa loxo soo tàllalee sa loxo doo ko lan doo ko gis yéefar yi yëpp ak ngir yëpp ci la yooyu lañ nekk waaw sama borom yàlla ne ku yàlla defalul ak leer doo mën a lan ak leer daa amul feneen fu dul ci yàlla ak leer mooy l'islam mooy alxuraan suñu nekkul feneen kon jógewukaayu leer kon day len day fenn foofu mooy fan ah leer fu muy bawoo ci yàlla kese te genn leer am ci àdduna yi ñaari leer amu fi ñaari yoon yu jub lan amul fi wala ñetti yoon yu jub ay yoon yu bari yoo xam ne wala ci neex soowu yëpp baax na amul wenn yoon wu jub moo am ci àdduna waaye mooy siraatal mustaqim mooy alxuraan ak sunna xam ngeen ko de leer leer googu nga xam ne mooy moom képp mooy yoon wu jub bi te moom dong moom fi dig leer la ko tàmbalee ca fa fa ñu yónnee sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba kër bu feewal gennug leer a fi ne mooy alquran ak sunna moom la suñu borom la wax suut Ibrahim aaya ju njëkk ja kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min alzulumaati ila annuuri bi idni rabbihim ila siraati alazizi alhamid mu ne yow Muhammad alquran ji ah li mu àndal ci sunna ab téere la boo xam ne noo ko wàcce ci yow ngir nga génne nit ñi jële leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer ci ndigalal seen borom nga yóbbu leen teg leen ci yoonu yàlla mu tedd mi yàlla mi yeyoo ko lan ku ko sant kon nag ndekete lislaam lépp leer la lislaam ak leer la koo xam ne day fenk ci dundub lan doomu aadama ngir leeral ko lislaam ak leer la koo xam ne day fenk ci xolub nit leerub lislaam bu fenkee ci xolub nit ay jikkoom yépp daal doon leer savoir vivre ak dundinam ak doxalinam lépp daal doon leer ay jëfam ci dunduk addunaam dundam gi muy dund digganteem ak boppam wala njabootam ak dundam gi muy dund digganteem ak lan ñi mu bokkal dëkk akum réew lépp di leer islam bu fenkee ci dund nit ay waxam day doon leer ay jëfam day doon lan ndax lu wax lu baax rek lay wax lu lu baax rek lay jëf su lekkee lekk day leer su naanee naa nga lan xoolal koo xam ne kii la muy lekk day sàmmanteeg mu lan mu lew te bu koy lekk da koy lekk loxol ndey jooram mii loxob leer tàmbali lekk ga ci bismillah bu lekkee lu yem bàyyi wax alhamdulillah te bu lekkee mosul jóg liggéey wala mu jaamu ji yàlla xam ngay woowee ñam ak leer la googee naan ak leer la bu doxee muy leer su toogee muy leer fa muy toog dig leer su waxee muy leer su noppee muy leer na muy doxal na muy wute alal day doon ak leer bu amee alal na mu koy lekkee day doon ak leer na muy amee ay doom ak na mu leen di yare day doon ak leer na muy taxawal dëkk ak na muy taxawal am réew day doon ak leer la mu seq ak ndeyam ak baayam la mu seq ak jabaram ak i doomam ak i mbokkam ci ay alaakaati relation day doon lan ak leer te itam jote gi mu am ak ay dëkkandoom ak na muy doxalee ci dëkkandoom day doon lan ak leer na muy doxalee ak ganam day doon lan Leer.
ak leer na muy doxalee politique gu réewam na muy doxalee koom-koomi réewam ak économie ba na muy àtte ci tribunal ba day doon lan Ak leer.
ak leer lépp day daal doon leer boo xamee ne bii leerub lislaam boo xamee ne bii lislaam jolli na fenk na ci dundu doomu aadama fenk ca xol ba day daal di topp jëfi nit ki ak ay mbiram yi yépp daal di ko sot sotti lan Dug leer.
sotti ko leer la ko waral moo dina su boobaa lépp lu muy def ñett yëf dina ci am dana nekk ba am ci ndigal yàlla doon koo def dana nekk ba am ci lan Ndigal yàlla.
doon koo def te mu koy def it da koy def ci turu yàlla te da koy jaarali ca yoon wa yàlla rëdd dina leen bir ne jëpp jëf ju benn ci ñett yi manqué rek jëf jooju dana lan dana manqué jëf ju waay bi jëf ñett yi formé lan War na caa lan.
kase ndem bëgg na mu doonu leer bu njëkk bi mooy na ci am ndigalal yàlla jëf joo xamee ne amoo ci ndigalal yàlla waroo koo def boo ko defee lëndëm lay doon ñaareel ba mooy na nga ko def bismillah ñetteel bi mooy lan na nga ko def jaar la ko ci yoon wa yàlla lan yàlla rek.
rëdd su ko defee loolu ginnaaw moo am ci dundu jullit bi société am lépp day daal doon lan Ak leer.
leer leer yu tagaloo rek nuur na ala nuur su ko defee dundam dundug jullit gi leer gu muy leer ci mujtamaa bi ak ci dëkk beeg penc mi du sa yem ndem jullit foo ko fekk tudd ko tu yàlla la foo ko fekk jàngkat alquran la foo ko fekk zikrakatullah la su ko defee leer ga day daal di jolli ci ak ruuxam bu ko defee doo wóolu loolu lu may jullit bi daal di doon am malaaka am malaaka muy lan muy naaw ci laakam ànd ak malaaka yi aw turam ci suuf day rafet te day leer aw turam ca kaw asamaan ci diggante malaaka yi tam day rafet lan Day leer.
te day leer noonu noonu leer dundam ji lépp di doon ak leer ndegam ñëw na ci yoonu lislaam ndegam ñëw na ci yoonu lan Ci yoonu yàlla su ko defee nag islam moo ngi noonu kon fab na dundu jullit bi lépp daf ko ak leer daal di koy takkee ci leer gu mag gi leeru asamaan ak suuf ndax xam ngeen leer gu mag gi mooy sama borom yàlla tabaraka wa taala allahu nuuru samawati wal ard saar yi ñu bëgg a firi nag daal di ñëw indi aslëf ci leer googu saar yi dafa ëmb aslëf ci yoonu yàlla yoonu lislaam kon dafa ëmb aslëf ci leeru lislaam saar gi saar wi santaane yi ci nekk yépp santaane bu ne boo ko jëfee jëf bi lu muy doon Leer la.
leer lay doon mu ngoog indi na aslëf ci ay xudud xudud mooy ab yar boo xam ne moom la ñu war a lan ah ah, fudde ku jàdd waaw jàdd sàngam ku ko def nañ la lan fudde yar sàngam loolu saar yu ënd na xeeti yar yu ñu war a fudd ñenn xeeti tooñkat muy xudut ënd na ay aadaab aadaab mooy ay defin yu ñu war a sàmmanteel ci biir penc mi ak ci famille bi ënd na tam ay jikko yoo xam ne moom nit ki war lan Jikko.
waaw loolu lépp saar wi ëndi ko su ko defee nag ngeen xam ne saar wi mexwar bi nga xam ne daal ci lay wër mooy saar wi day yare saar wi day lan Day yare.
day yare ak di jàngale yar nit ki yar njaboot gi yar mbooloom réew mi te di leen di yar kat yarug leer boo xam ne da leen di yëkkati da leen di dàqate ci ci ci mboxo mboxo bi da leen di dàqate ci salte salte yi ak sama sama yi ngir rek mu jokk leen ci leerug asamaan ak suuf jokk leen ci yàlla saar wi bu ñu dee seet li mu ëmb mën nañ koo tënk ci juróomi diggante diggante bu njëkk bi saar wi gannaaw bu mu tàmbalee tàmbali gu gu amuk dogu te tàmbali ga mooy suratun anzalnaha wa faradnaha aw saar googu waa xam nun yàlla ñoo ko wàccee faratal ko ci yéen ngeen war koo def mu jeex tàmbali gu dogu googu lam ci daal teg ci saasi mooy ku njaaloo yar biñ ko war a teg ku njaaloo yar biñ ko war a lan kon li mel ne bu ñu dee seet li saar wi ëmb li mu jëkk ëmb mooy lan ku njaaloo yar biñ ko war a lan ba noppi saar wi wone won na won nanu njaaloo bon gum bon ak ñàng gumu ñàng saar wi àgg na sax ci njaalookat yi mu yàq seen diggante ak leen mboolem jullit ñi waaw ba wone ne njaalookat yi feeg tuubuñu bokkatuñ ci sunu mujtama ñun tam bokkatuñu lan ñoom ba waratuñoo sëy sax sax kon loolu daf nuy won bonaayu lan njaaloo njaaloo bon na lool ba ku koy def war nañ laa teg yar bu rëy lool waaye it njaaloo bon na lool ba ku ko jiñ nit te indiwoo ay firnde yu wér am na yar bu la lan kooku mooy mawdu ñaare wala bu ñetteel ci saar yi mawdu bu njëkk mooy ku njaaloo lu ñu koy def ñaare bi mooy dagg jote gi nekkoon diggante njaaloo ko si ak lan jullit ñi mu tamaam yi ñetteel bi nag mooy njaaloo ginnaaw bañ na noonu kenn waru ko jiñ nit te amoo ci firnde ju wér ku ko jiñ nit te amoo ci firnde ju wér ban yar lañ la war lan Lañ la war a teg teg.
kooku mooy Maodo ñetteel bi mu mel na it léeg-léeg nit bëgg a jiñ nit liñ jabaram njaaloo te mën a am ay firnde te duma dem di ko lan wuti ñu wutal nag ku jiñ jabaram njaaloo ñu wutal ko atte boppam lu bokkut ak ku ko jiñ ab jàmbur mu ngoog bu ko defee nag diggante bu njëkk bi yooyu la indi waaye ci mujjug aaya yi nag muy wane ne njaalookat yee njaalookat yee déggoo ku baax ku baax lay sëyal ku bon tam mooy sëyal lan ku bon ku bon loolu mooy diggante bu njëkk bi diggante bu ñaareel bi xanaa kon gis ngeen diggante bu njëkk bi dafa xeex njaaloo Waaw.
dafa xeex lan Njaaloo.
nu mu ko xeexee ku ko def nañ la du fudd nañ def nangam ak nangam diggante bu ñaareel bi itam seetloo ngeen xam ne njaaloo lay xeex moom lay faj ba du am lan ci dëkk bi waaye nu mu koy fajee wiqaaya xam nga diggante bu njëkk bi daf ne woon ku njaaloo ba noppi liñ koy teg loo xam ne dina tax ba ñi njaaloowul woon du ñu lan boobu ñaareel bi nag def noo andil yoon woo xam ne yoonu leer la woo xam ne buñ ci jaaree njaaloo du am ndax la koy waral du am non ah moytu la xel yi ak xol yi asbaab yi tax nit ki m- xelam jëm ci jigéen aw jëmin woo xam ne wii mën naa waral njaaloo moo tax ba mu tàmbalee ci booy dugg ci kër na nga war a sàmmonteel ba boo fa duggee doo fa gis loo foot lan Loo foot.
gis luy def sam xel ci caay-caay santaane it ni moo xam góor moo xam jigéen kenn ko ci ne na gëmm bëtam bañ a fab bëtam di ko teg ca ca ca ka ca def di ko xool aw xool yi woo xam ne mën na indi jërëjëf boobu ñuy bañ te mooy njaaloo ginnaaw bu ne góor bu mu xool jigéen jigéen bu mu xool góor mu teg ci ne te jigéen ñi it seeni toilette nañ ko lan denc ñaataa goog yoo xam ne day fekk njaaloo ba du am lu ko lu ko mën a waral tam du am ñett bu njëkk bi mooy booy dugg ci néeg na nga fay duggee ba ba doo fa gis loo xam ne bëggoo ko woon a gis mu lay xeetal ci lu jëm ci njaaloo benn ñaareel bi mooy lan mooy santaane góor ñi nañu gëm seen bët bañ a xool jigéen ñi jigéen itam nañu gëm lan Seen bët.
bañ a xool góor ñi mu ngoog ndax boo xoolee rek mën naa nga gis loo xam ne doo ca mën a jot te doo ko mën a ñàkk nga wuti ko ñaar ñetteel bi mooy lan jigéen ñi nañu denc seen lan seen toilette ak seen i taar juróomeel bi mooy eh, ñeenteel bi mooy eh, sharia def noo sant ne ñi mat a sëy ci jigéen ñi te sëyuñu nañ leen may jëkkër ñu sëy loolu bokk na ci lii dimbali ba njaaloo ba ñaan ci mu taw bi ñi ma da sëy ni la may lan sëy.
ñu sëy juróomeel bi mooy bu kenn am ab xale bu jigéen di ko xeetal ci wutu far di ko xeetal lan Ci wutu far.
ci wutu far ndax loolu lépp ah day indi njàllo kon gis nga kon juróomi yëfu googu yoo xam ne saar wi indi na ko muy loo xam ne day day fekk xolub nit ki ba mu mën a laab ba mu mën a sell ba nga xam ne xol bi du jóg jëm ci loo xam ne lii njaaloo la wala mën naa waral lan wala mën naa waral njaaloo te itam waaye da nga xam ne ji moom xam na ne njaaloo baaxul xam na ne njaaloo neexut yàlla bugg koo def mi ngi koy moytu waaye nas ko dimbali ba xolam boobee mu bëgg a laabal xol bi mën a lan Mën a laab.
laab ni ñu koy dimbalee mooy bu mu gis luy def am xelam ci jigéen bu mu ko gis mooy maanaam lan mooy maanaam na ndaw si muur ab taaram ak toiletam na ko denc te itam ndaw si su ma tee sëy nañ ko bàyyi mu sëy te bu kenn dem di ko xiitam naa ko dama wuti lan aw fa ba diggante ñetteel bi daal di ñëw di di beesal mujtama bi ak seen ngëm ci yàlla dina takk ak lan dina takk ak yàlla di wax néeg bi gën a laab ci néeg yi te mooy néegi yàlla yi ak ñi koy dundal ci zikrullah mu nga ah te xam ne foofa la leer di bawoo di sottiku ci adduna bi di wax tam yéefar yi ak seen jëf lëndëm gu mu lëndëm ak naxe gu mu mën a lan ci lu ci lu wér a wér yoonu yéefar daa mën a naxe te nax nañu bari mu nga loolu lépp saa wane ko ah dolli nu ay ay ay ay xeeti tëbb ci leer yàlla yi nekk ci tabia bi yi nekk ci gox yi wane ne mbindaafoon yépp ñu ngi sabbaal suñu borom yàlla mu nga ko wane kattanu sa borom yàlla itam ci tàggat gum tàggat lan aw niir ba muy indi ab taw tàggat gu yàlla tàggat suuf si ba muy indi guddi ak bëccëg ak jant bi tàggat gu yàlla tàggat sàkk gu yàlla sàkk mboolem mbindaafoon yi borom bakkan yépp yàlla sàkk leen leen ci ndox borom bakkan yépp yàlla leen sàkk leen te teewul kat ñu wuute ñii borom bakkan dañoo am ñaari tànk dañuy doxe ñii di doxe ñeent ñii di bato di raam seen biir te teewul ñoom ñëpp lan ñu ngi jóge lan ci ndox loolu lépp di ay mandarga yi wane kattanu sa borom yàlla ci ñi nga xam ne ñi seen i xel gën a gis ak seen i xol diggante ñeenteel bi di wane naa fekk yi di wane lan effectivement ñàkk a tënku bu ñu ñàkk a tënku ci ndigali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu dem moo waroon dañoo waroon tënku ci ndigali yonent bi waaye ñàkk a def bu ñu ko ñàkk a def mu ngoog topp ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak teewu ñu itam ci li yonent bi lan indi di wane ci wetu loolu muy wane jullit ñoom seenu tënku ci ndigali yonent bi seenu am teggin seenu sellal seenu déggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te it mu di leen dig ne ndaxte ñoom ñoo def loolu tax na ba dina leen may ak jekkandiku dana leen def ay xalifa am lan ci kaw suuf dana leen dimbali ba ñu gañe yéefar yi juróomeel bi daal di del siwaat ak nun ca Maodo saar wi dina jàngal dina yar dina wo- jàngal nu nu war a yëgloo bu ñu bëggee dugg ci néeg ba noppi it indiwaale nuyoo win bi nga xam ne moom la yàlla tànnal lan boppam boppam ne na ko jullit ñi di nuyoo ndax jàmm nga fanaan la ndax bonjour la ndax allo ça va la ndax na nga def mu ngoog daal di indi nuyoo yin ba nga xam ne moom la yàlla tànn na ko jullit ñi lan di nuyoo indi itam teg gi ni gane ak nganale mu ngoog ci biir kër yi diggante mbokk ji gañaale ak xarit yi mu ngoog ak itam mbooloom jullit ñi ñoom ñëpp ñoo xaw a dama ne genn njaboot ñu war a ànd ak sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy seen baay te itam mooy ki leen di yar ni nga ko war a woowee ni nga ko war a màggale ni nga ko war a déggale saar wi jeexal ana lu mu jeexale wane xaqiqa bu rëy saar wi dafa dafa wane illa ji bokk ci illal yi tax mu tàmbalee ni mu tàmbalee saar wi ana lu mu tàmbalee suratun anzalnaha aw saar ngi wax ne noo ko wàcce wa faradnaha te nu waral ko li tax yàlla di waral ndaxte moom moo sàkk te moom moom ala inna lillahi ma fi samawati wal ard yàlla moo moom li ci asamaan yeeg li ci suuf si ay nit ak ay bay naag lépp li fi ne kon nag war naa sañ a tëral ay atte te itam war naa sañ a imposer nit ñi te itam su boobaa dañoo war a wéylan ci ay ndigalam wane na yàlla nag xam na li nit ñi di def ku jub xam na ku dëng yàlla xam na te itam faw ñëpp dellu ci suñu borom yàlla tabaraka wa taala kenn ko ne la muy lan def yàlla dina ko lan yàlla dana ko fay te yàlla xam na lépp ci kaw gépp tënk ak gàttal lii mooy li nga xam ne moom la saar yu lan am am seen ko de waaw
هذه سورة النور يذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات الله تعالى الله نور السماوات والأرض ويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح والجوارح ممثلة هذا ال- هذه الآثار في النظام الإسلامي فالنظام الإسلامي نور وأي نظام غيره ظلام فجميع النظم البشرية الاجتماعية منها والسياسية وجميع المذاهب الفلسفية كلها ظلام وجميع القوانين الوضعية والتشريعات البشرية سياسيها واقتصاديها وقضائيها كلها ظلام فالنظام الرأسمالي الليبرالي ظلام والنظام الاشتراكي ظلام الليبرالي moom ngir la ngir doxalinu réew la mi ngi jóge ci baatu liberté bi nga xam ne bi day may nit ki ah lu ko soob rek mu def boobu xeetu liberté moom la tubaab yi di wax nee na nit ki lu ko soob rek mën na ko def feeg duggul ci lan ah xoriyat keneen ku dul moom noonu la islam gisal noonu la euh, nasaraan gisal lan noonu la tubaab gisal liberté loolu soob mën nga ko lan mën nga ko def def yaa moom sa bopp ah libre nga wutal alal nu la neex soo wutee alal ba am ko defe ko lan nu la neex doxalee réew mi nu la neex xanaa kon yàlla amut xanaa yàlla sàkku nit ñi xanaa moomu leen mu ngoog loolu mooy libéralisme فين قلت نقول فالنظام الرأسمالي الليبرالي ولام والنظام الاشتراكي ولام والنظام الشيوعي ولام والماسونية بجميع أنديتها وفروعها الروتاري كلب والليونز كلب كلها ظلام وكل ما خالف النظام الإسلامي من عادات البشر وتقاليدهم وآدابهم وأخلاقهم ونظم حياتهم فهي ضلال وكل سلوك فردي أو جماعي مخالف للإسلام فهو ضلال والقاعدة أن كل نظام وضعه الإنسان فهو ضلال فهمتم؟ ولا أدل على ذلك من هذه الشقاوة المطبقة التي تعاني منها العالم بكل مجتمعاتها وهذا الفشل الذريع الذي فشلته جميع النظم الوضعية مم؟
ak variant مم؟
variant waaw maanaam fasal gu rëy fasal gu rëy gi nga xam ne gi lan doxal li ni réew yi ñu indi léegi ñoom ñëpp maase nañ ci lan ci fasal ko fas nga ko waaw xanaa gis nga ko de mu ngoog لقد أصبح واضحا وضوح شمس الضحى أن كلا من هذه النظم إنما هو في حقيقته سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وأصبح العالم كله يعيش في ظلمات من الجهل والشك والحيرة والنجاسة والضلال ظلمات بعضها فوق بعض فهمت هذا؟
نعم.
ولقد عبرت سورة النور عن هذه الحقيقة في آياتها فهمت هذا؟
نعم.
والذين كفروا أعمالهم كسراب ب-